matin RFM matin émission billet au Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan euh, Maimouna Bousso salam aleykum salaam sëñ Babacar. ñu fàtt ni yaa ngi euh, opposition bi wax force citoyenne bokk ci FRN di mbootaay Benen, wax mu ne dafa ëmbi bànqaas opposition euh, tey sax kuréel googu njiitu réew mi euh, euh, taxawal ngir xeex jàngoro corona ak lépp lu jëm ci wàllu koom ak niñ koy doxalee ba Sénégal génne ci nan ko force Covid 19. te général François Ndiaye euh, jiite comité suivi bi ñoom tey la ñuy def seen réunion bu njëkk sax yow boole woon nañ la ci force comité de suivi boobule nga war fa teewal FRN di waa opposition bi nga ni doo ca dem mën nga ñu fàttali lu taxawaay. waaw sëñ Babacar maa ngi nuyu di nuyu sa auditeurs yëpp di nuyu askanu Sénégal di wax rek ne effectivement tey la euh, force Covid bi comité de suivi bi di tàmbali. ñun nag euh, ñàkk ci dem du càgginu dañoo amul ci euh, yëg-yëg wala respect ci opposition bi nga xamante ne moo ñu tànn damay rappeler ni du président Macky Sall moo ñu tànnoon mais kuréel gi tu gi tudd FRN opposition bi daje ci nous ñu proposé pour ñu teewal leen euh, li tax euh, euh, force Covid bi taxaw nañu ci ñu bëggoon ni comité mais un comité de pilotage bëggoon ñu comité boo xam dafa président de la république ba mu ñëpp ci de la république commission bi lañu bëggoon mu taxaw pour càmbar lépp marché ci début ba daal di xool nag lépp loo xamante ne Sénégalais ñu ko de mais daanaka comme coow li commencé na ba noppi mu am ay ay jeexi jaaxe yu ci am ñu jàpp ni suñu rôle du topp ci ginnaaw euh, jaan bi di xool waaye nag am nañu reste trop ci ki nga xam ne mooy ministre Abib Sy mu nga xam ne moom moo ñu ko teewal jamono yi respect boobu moo tax nag du ñu dingat mukk liggéey bi nga xamante ne tàmbali nañ ko li ñaan rek te li ñu ci jéem a contrôle unité général François Ndiaye jiite ko mu am résultat mais nag jàpp nañu daal euh, war nañu féete feneen askan wi lu dul hmm. euh, li nga wax noonu la ndax njiitu mi ba muy tudd loola dafa ne woon comité de pilotage maanaam ñi nekk ci comité bi François Ndiaye jiite normalement euh, dogalu seddale ceeb ak jënd kook euh, xool ci kan lañ koy jëndee ñoo ko waroon toppatoo ñu dem ba ci biir moom Macky Sall mu soppi ko def ko comité de suivi est-ce que yaakaar nga ni naam opposition bi teew na ca. Euh, yëf yi dinañ ko mën a leeral ndax aw na yoonam awul yoon. waaw dama jàpp nii lenn rek la ñu mën a ñaan mooy xëy na euh, comme euh, général de l'armée moom moo ne ca kanam amaana xëy na séddale bi kon dina jaar yoon mais ñun du noonu lañ ko gisee woon parce que Babacar mille milliards dafa nekk daanaka boo xoolee boo jëlee suñu suñu budget bi nga xamante ne mu ngi ci quatre mille deux cent et quelques milliards mille milliards benn pàcc la ñeenteel boo ko xaajee ñeent benn pàcc la ci donc du ndaw

parce que am respect comme ni wax ci euh, armée am respect ci ne fa ba tax ne amul leen di ñaan rek mooy gannaaw armée la mu amati parce que nag euh, toujours di ci am ay suspicion wala day am ay manque de confiance mmh. mais nag euh, président waroon def ci gannaaw li li décision yi depuis le début mooy dafa waroon na taxawal comité bi balaa muy jël benn décision wu benn dërëm boo xamante ne dafa dañ koy jële ci ci ci force Covid boobu mais itam xëy na coow li moom moo waral loolu parce que nag Babacar damay fàttali ni euh, euh, bi coow li commencé président amoon na quand même unité nationale boo xamante ne sénégalais yi da defoon nañ ko autour de sa personne joxoon nañ ko confiance itam ñëpp tegoon nañu ngànnaay yi ñëpp nangu woon nañu topp ci ginnaawam ànd ak moom mais bi euh, scandale yi jógee ci la nag confiance bi daal di daal di daal di tas bi nga xamante ne scandale u xaalis beeg ñi nga xamante ne noonu la ñuy joxee marché bi loolu jibee ci la sénégalais yi seen xel tey ci la nga xamante ne itam ci la nit ñi ne ah kon xalaat nañ ni toogoon nañu ni lii du am ndax jàppoon nañu ni mbas mi fi mu toll ak li ñuy wax nit ñi lépp ci ay danger tey waruñu woon toog di dégg ay marché gré à gré ay jox ko ku ko yelloowul ak yeneen xeetu coow yi nga xamante ne jamono ji Sénégal soxlawu ko. Mm, El Hadj Ndiogou Diène mooy laaj. ñàkk teewaay bi ndax gëm-gëm la conviction la wala taxawaay way politique la opposition bi euh, saa yu neen woowee ak lu mënti doon ñu ne ak ah, nguur gi la duñ ci dem bi gisoo woon ne dem teew moo gën ñàkk teew ndax bu dul dara sax daa ngeen xam mbir yi nu mu demee bu subaa ngeen mën a wax lii ak lii la demee. waaw loolu lay wax xam nga ñàkkuñu ci teew. Euh, FRN nag man bi ñu ma bi ñu ma tànnee damay déjà rafetlu euh, choix boobu bi ñu ma proposé parce que lu sax tànneel xëy na dañ maa laaj naka laa ko gisee parce que yaakaaroon nañu waroon naa leen ci mën a teewal. du càgg ñu euh, ñàkk ñàkk bëgg a teew dafa dafa di dafa am fu ñu toll ñun ci suñu sensibilisation ci askan wi wax ji dafay am jiixi jaaxa parce que bu fekkente ne jamono départ nañu ñu ne kat lii dafa am nu ñu ko war a taxawee. te dañuy dañuy fàttali ni opposition bi ci FRN teewoon nañu ci palais de la république ñoom ak yeneen pàcc opposition bi yépp demoon nañu wuyu autour du président de la république mais nag bu fekkente ne euh, président de la république ñàkk premier ministre dafa tax ñu sentir ni euh, am na lu sooxee qui pilotage ou euh, force Covid parce que tay li peut-être bu ñu amoon ministre xëy le président du doon dem au front ba coow li di am mais président obligé dem au front mu ci front bi kan la mi ko ci muy mi nga donc ci scandale milliard yooyu ñu euh, jamono ji engagement activiste ci wetu askan wi bu ñu nee dañuy delluwaat naan dañuy bokk ci comité boobu dina am xëy na jiixi jaaxa yi mu am ci bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu loolu dong moo tax mais du ñàkk nawlu ñu ñu tànn du ñàkk nawlu itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite mbir mi. léegi fi ñu toll nii ci xeex bi noo ko xaymaa jàngatee ko tolluwaayu jàngoro yi coronavirus gi ci ci réew mi li war kilifa yéeg li war askan wi euh, yenn gën nga ci teg waaw euh, Babacar maa ngi kontaan lool ci question bi di wax ne rek ñun am nañu njaaxle lool lool lool parce que fi ñu toll nii ci Sénégal ñu ngi toll ci phase deux ci ci jàngoro ji bu ñu nee phase deux nag mooy euh, jamono ji ñun presque ñun ñooy neuvième rang mondial fii euh, adduna bi feebar bi ni ñu yokkoo ci askan ñun ñoo ci neuvième daanaka boo jëlee benn fukki nit ñun ñooy neuvième personne bi xam nga kon loolu dafa am dafa am importance mu am tey suñu ay capacité ci hôpital yi nous avons ni 62% de capacité donc 48% de ñu dese ci ay capacité fu ñu mën a pour que le système de santé bi débordé. loolu nag bu amee ñu nekk réew à xamante plus de 50% de la population dañoo pauvre fonction publique li ñuy employé tamit ma 130 000 personnes askan bi daanaka ñu nekk ci secteur informel bi ëpp nañu 90% kon suñu daafaka bu ñu tolloo ci jamono jooju tollu ci réew moom kenn nous ku nekk dafa war a xool taxawaayam xool comportement parce que itam euh, li nga xamante ne moo tax OMS depuis le 15 mars muy alerté di alerté Afrique di alerté Sénégal nit ñi foog ne xëy na mbiru politique la wala mbiru gis-gisu euh, nasaraan yi la par rapport ak ñun li tax ñuy alerté mooy suñu population dafa pauvre suñu population boobu ba léegi nit ñi ñaan leen toog leen seen kër mais nit ñi ñu parce que dañoo bëgg a taxawaalu ñàkk pexe moo tax ñuy génn waaye seen Babacar dañoo toll foo xam ne nag

loolu moo tax tey suñu askan bi jël ay danger di jël ay risques yoo xamante ne feebar bi bu fi amee kër ñun ñëpp xamuñu fu ñu jëm parce que indiscipline bu mata mata mata mat mu ngi ci suñu biir parce que mënuñu comprendre tey fii cas communautaire yi toll daanaka presque huit cent quatre-vingt-deux personnes testé nañ leen positif au Covid ci Sénégal bi ñu toll actuellement ñu ngi ci plus de cinq cent cinquante personnes yu feebar ñu war a toog sénégalais yi di buuxante ci biir marché yi yi di buuxante ci buntu boulangerie yi Sénégalais yi di buuxante ci kaar yi am na loo xam ne nag rôle état la mais am na loo xam ne itam sëñ Babacar ñun askan lu ñoo ko war a jëlal suñu bopp parce que mënuñu saa yi bu ñu toll fu ñu toll ñuy jàmbat fu ñu toll ñuy jooytu fu ñu toll ñu naan dañoo war a jàppale dañoo war a dimbali te kenn su ñun nanguwul def waree fam ba mu mag man nag tey euh, suma plaidoyer dama ko bëgg a teg ci suma askan parce que nag askan lañ boo xamante ne yàgg nañu jooytu injustice di joytu inégalité ku nekk ñëw na fi def ak ñun naka suñu dul noonu muy nasaraan si muy escla depuis esclavage colonisation ba tey tey nag aduna moo ñuy seetaan ñu war a relever le défi relever le défi moo ñu wane ni am nañu civilisation civilisation bi ñuy woote depuis boobu di wax ne mu suñu culture africaine dafa jot ñu wane ko wane ko nag mooy am taxawaay bu mat hmm. te li nga xamante ne moom la ñu nekk di wane nii muy ay ay comportement yoo xamante ne bu ñu ci jógutee fi ñu jëm suba wax dëgg yàlla dina métti ci suñu askan dina métti itam ci suñu économie. wala <laughs> askan moom sax ngay wax yaa ngi wax indiscipline ak incivisme mais gis nañ tamit euh, jamono ji fii feebar bi toll ci réew mi ay kaa yu bëri plus de huit cent cas ay nit taxaw naan feebar bi amul ay waxu kese la wala feebaru ñook yooyu loolu lan moo ciy pexe nañu mën a def ba nga xamante ni daal daañu soppi taxawaay yi ak tamit xalaat yi. waaw euh, maa ngi maa ngi loo dañu koy dañu ko war a wax mooy dafa am ñi nga xam ne ñooy wooyee seen bopp ay porteurs de voix ak ay leaders d'opinion ak ay leaders d'opposition bi ma bokk ci ñoom lay tàmbalee. di leen ñaan parce que itam président Macky Sall dafa ni woon dafa nekk en guerre ba tax ñoom kenn ku nekk ci ñoom jógoon dem wuy ji ko palais de la république jël moom audience bi nga génnee nga ne gannaaw ci guerre lañ nekk moom mooy commandant na ñëpp ne ci ginnaawam. nit ki nag munoo ne danaa nekk ci ginnaaw commandant buy dem guerre nga dem ca rappel des ba nga ñibbee nga toog ci sa kër tey ñoom ñëpp dañoo war a jóg nekk en ordre de combat en ordre de bataille parce que askan bi gannaaw boobu ba léegi ñu ngi wax yeewuñu yéen presse bi def ngeen ci bi ngeen mën ndaxte seen programme yëpp changé ngeen ko defaat ko ay programme sensibilisation mais dafa am loo xamante ne alaaj njóogu moom laaj moom moo ma jaaxal nga xam ne ñooy porteur de voix nekk ay lid ay ay président de de de parti ak leneen ak leneen ana lu tax mënuñoo jóg suuf seen loxo ci sensibilisation bi ana lan moo tax bu élection jotee ak bu politique jotee. wala bu kenn gisu leen kenn gisu leen de. waaw kenn ku ne nga gis ko mu nekk di di di rivaliser d'ardeur ñii di concours euh, fichette shirt di concours programme ñii di concours leneen ak leneen tey ñu ne askan wi dafa nekk en danger ñëpp bëgg a banque seen loxo bàyyi ko président Macky Sall kese ndax président Macky Sall nag moom mooy jiite de moom mooy responsable itam lépp lu nga xamante ne dafa nar a am mais nag moom li nga xam ne mooy gàllankoor Covid bi du moom kese moom moo koy subir c'est le peuple sénégalais qui est en danger.

parce que lii dañu ci am responsabilité parce que nous nga xamante ne ñoom ñooy askan wi ay nit lañ ñoo xamante kenn ku nekk ci ñoom ci fa nga kenn ku nekk ci mu yor mi kon dafa jot kenn ci ku nekk taxaw sensibilisation parce que communication parce que mënee nañ ko Nous bu ko mais de façon très franche pas en disant que dañuy bañ a le président Macky Sall wala di le di parce que lui président Macky Sall kese doxal parce que ça concerne tout le monde nañu xool tey déjà suñu taxawaayu kilifa kilifa diine yi ñi nga xamante ne macha allah dañoo war saluer seen cette seen position parce que tey bu dutoon na ñoom heure bii propagation de gën na fi parce que ñom ñoo jël sen sen responsabilité accepter li nga xamantene mom moy fermeture des des lieux de culte buñu ko bañon tamit état bi gëm naa ne li mu ciy du bare mais gannaaw ñoom ñoo mën a wàcc loolu te saa yi bu ñu génnee tamit ñu ngi wax ñu ngi leen di ñaax nag di leen ñaan ñu gën a wax parce que gétt gi dafa tasaaroo te gétt gi boo leen bàyyeeg seen bopp gétt gi mooy askan wi gétt gi boo leen bàyyeeg seen bopp nga jël décision ne nañu toog ci kër yi bu ñu dem ci jumaa yi nañu toog ci kër yi bu ñu ñëw ci jàng yeeg bu ñu ñëw ci ziyaara yi mais nga bale nag seen bopp doo wax ñu dégg amaana comme li nga wax léegi ñenn ñi gëmuñu feebar bi ñenn ñi euh, xëy na seen inconscience moo leen ko indi mais dañ leen a war a dimbale. ñi mhm. leen war a dimbale mooy ñi leen jiite. léegi am na nag euh, waa joo xam ne fan yi moom ñi ngi koy seen ci réew mi muy yëkkati kàddu rek euh, ñu ni euh, expert en santé publique la tudd Pape Moussa Thior mu ngi waxtaan ak yéen kaay bi du l'observateur seet nañ ko ci ay vidéo yu wër fan yi tey mi ngi wax ak l'observateur la waxoon ci vidéo bi la tollanti ci l'observateur nee na daal. Euh, gouvernement bi day tiital askan wi ci Mali foro ay cas communautaire yooyu yëpp garaawul nee na virus bi sax dañ ko war a bàyyi mu taxawaalu loolu moom noo ko gisee. waaw loolu sëñ Babacar maa ngi koy naqarlu parce que lu tax ma koy naqarlu mooy professeur bu toll ni sëñ Coor moomu bu demee bay wax dafa war a xam ana askan bi muy waxal parce que virus bi bu nee circulé wul xanaa moom dafa xam dafa wax le contraire de li mu gëm parce que tey Sénégal nekkuñu en confinement. Sénégal couvre-feu la ñu nekk guddi ba guddi la nit ñi dul circuler mais diggante six heures du matin ba huit heures ci guddi nit ñaa ngi circuler kon bu fekkente ne virus virus bi loolu doyu ko ci circulation ñun xamuñu lan moo ko doy kon ci ay waxtu circulation. nee na nee na dañu dañoo war a bàyyi virus bi mu dugg ci biir askan bi bu ko defee sunu yaram yi mën a jàmmarloog virus bi ba du du duñu lor loolu la wax. waaw xam nga loolu waxin la boo xamante ne ay théorie la rek parce que jamono ji virus bi bi muy ñëw ci àdduna bi ñëpp la bett. gannaaw dëkk yi nga xamante ne moo ñu ëpp système sanitaire ñoom la virus mën a bett ba tey jii. li muy wax noonu li muy wax noonu noonu la Angleterre doxalee woon waaye gis nañ lu mu leen lu mu leen jural. voilà xam nga dafa am loo xamante ne bu fekkee maîtriser woo tournant yëpp hmm. jël ci yenn risques yi dafa dafa irresponsable benn benn régime bi ko jël parce que tey régime bi bu jëloon décision boobu bàyyi virus bi mu dugg ci biir nit ñi di seetaan ne nit ñi mën nañu développer euh, seen immunité personnelle parce que Sénégal tamit bi ñu ko waxee ba wax ko mooy on est une population très jeune ay ay ndaw lañu donc bu ñu xoolee ci ndaw boobu ñu ne ah, Sénégal kat comme daanaka ñi fi nekk ci ci ay ndaw moo ëpp ñi fi nekk ci ay mag kon virus bi comme ak ah, boo demee ci ci nasaraan virus bi mag ñi lay gën a rey donc du rey ndaw ñi kon mën nañu bàyyi virus bi mu dugg ci réew mi ndax ñu développé suñu suñu système immunitaire dara wóoruñu ci loolu parce que dafay lu bees dafay loo xamante ne kenn maîtriser gu ko waa ba mu juddu woon ba mu fa demee ba tane ba ñu jàpp ni jeex na dafa tàmbaliwaat deuxième vague bi Europe gee nga xamante ne dañ ko minimiser woon ba jàpp woon ñi dina amee ni problème tey fi mu toll nii xamuñu fu ñu jëm kon nag lu mel noonu soo ko amee am peuple boo xamante ne itam damay wax toujours ci indiscipline bi hmm. parce que tey ñu ngi ñu ngi bëri ñu ngi yuuxu naan nañu ubbi jumaa yi nañu ubbi jàkke yi ñun bu ñuy tënkale suñu bopp ak peuple yi nga xamante ne dañoo discipliné ba mën a dem di julli correctement ñibbi loolu nag wax dëgg neex yàlla moo waral man may may remercier suñu kilifa diine yi parce que itam taxaw di wax yenn yi sax ñàkku rek suñu kilifa diine yi mhm. parce que ñi nga xamante ne diine dong la ñu am l'islam dong lañu am bu dee ñooñ ñoo nangu ñu tëj jumaa yi du seen ñàkk a mat du seen ñàkk kilifteef dañoo yërëm seen askan te xam ni yoon bii ñuy jaar mën nañ cee lor askan wi te ne kenn terewul kenn jaamu suñu boromam ci biir këram kon bu ñu taxawee naan nañu ubbi jumaa yi ndax bëgg rek wax joo xamante ne dafay am ni mu neex dañoo waruñu encourager sénégalais ñu foog ne jumaa yi tëj ko dafa am lu mu war a mën a yàq suñu diine wala dafa am lu mu war a mën a sooxee ci suñu engagement tey l'heure n'est pas à ce genre de tergiversation là nekk ci di di jiixi jaaxa ay détails jaru ko xam nga tey heure bi fan la toll kenn si ñun ku nekk mu jàpp ni moom moo war xeex virus bi ci yo ci boppam moom moo war a taxaw virus bi jóge fi virus bi du mbiru président Macky Sall virus bi du mbiru ay ministre de l'intérieur du mbiru ministre de la santé du mbiru keneen parce que nag euh, économiquement suñu seen suñu dëkk bi dafa mënta supporter virus bu toll nii gannaaw dëkk yi mel ne France ñoom jamono yi ñoom ñoo nekk ci tànk déconfiné seen réew ndaxte mënuñu supporter éco euh, éco crise économique bi ñu nar a dund attentuma ñun ñi nga xam ni balaa virus bi di ñëw daf ñu fekkoon dèjà ñu sooxe yor ay bor dafa jot nag. ku nekk ñu àndoo ci confinement maanaam euh, ñu daal di tëj nit ñu bëri génn ak yooyu loolu buñ ko doon def yow dafa mel ni d' accord ci xalaat bu ni mel. Euh, ñëpp fan yële passé proposé woon naa ñu confiner Dakar. Hmm. proposé woon naa ñu confiner Dakar parce que dama jàppoon ni bi ñu waxee ni cas importé yi commencé naa jeex cas contact moo fi nekkoon ak quelques cas communautaires. yu commencé di law ndànk-ndànk ma xalaatoon ni gannaaw Dakar fa la problème bi mën a dikkee parce que ñëpp Dakar na ñuy jógee di dem ci yeneen bërëb yi te tey dëgg woon nañu ko booba la ñu proposé woon nañu mettre en quarantaine Dakar parce que boobu même Touba jeexaloon nañ ci ay cas mais ñëpp gis nañ ni même Touba tey li ko li li ko indi problème bi ay allo Dakar ñoo jógee Dakar dem Touba delluwaat. yi a yéen a may na may mun a Bousso en tout cas ñu ngi lay gërëm ci waxtaan bi am na solo euh, ma fàttali yaa jiite force euh, mouvement force citoyenne bokk ci euh, FRN di benn mbootaayu parti opposition ñu yendoog jàmm jërëjëf. jërëjëf sëñ Babacar. da ngeen jëf mbokk yi.